rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli atlub minka al ilma qabla al amali faltaqini jahla wa qut li amali lii jut bi neeti la daa ibdaa shay'in fa anta waatida lii jut bi sabri fi ibadaati aljamil xata utimaha wa kun lii bi jamil habliya fi ibadati ixlaas wa bi muntaha wa habliya alxalaas barke Cheikh Xadim barke Cheikh Xadim bokk jullit yi rawatina mbokki taalibe yi yéen ñu baaxoo suivre seen télévision Bichri TV rawatina yéen ñi topp ci la weeru koor wi ñuy jëlee ci téere boobu bu tedd boobu di Qurratul Ayni jël si nañ kon ngir fas yéene leen indil la ci ñaareelu guddi weeru koor ginnaaw bi ñu leen indilee la ci guddi gi njëkk ci weeru koor comme ni ngeen ko sibiré woon démb tey nag ñu fas yéene leen indil naafila gi nga xam ne moom lañu war a naafila ci ñaareelu guddi ci weeru koor kon naafila mi ngi toll ci juróom rakk kon juróom benn rakk la ñuy naafila muy ñaareelu guddi ci weeru koor kon rakk bu ci nekk da ngay jàng faatiya ak ina ate naakal kawsara fukki yoon kon boo jàngee faatiya ina ate naakal kawsara moom ngay jàng fukki yoon ñu baamtuwaat ko kon guddik tey muy ñaareelu guddi kon juróom benn ràkk lay doon ràkk bu ci nekk nga jàng faatiya jàng inaa a'taynaaka al kawsara fukki yoon ki def lii ban tiyaaba lay am kon ki def lii ku julli fukki maanaam juróom benn ràkk yooyu ràkk bu ci ne nga jàng inaa a'taynaaka al kawsara ki ko def danañ ko jéggal ay bakkaaram bakkaareen bakkaaram yépp lañ koy jéggal kon loolu rek waaw jar naa tax euh, maanaam jullit ñi rawatina ñu mbokk taalibe ñu saxal téere bi te li gën a yéeme mooy balaa mu doon jóge fi mu doon jullee juróom-benn ràkk yi ma lim sànq ci leen koy jéggal bàkkaaram yëpp maanaam balaa mooy jóge fa mu doon jullee ci leen koy jéggal bàkkaaram yépp te du yem foofu tamit danañ ko bindal tiyaaba ku aj junni yoon xam ngeen ni benn aj bu yàlla nangu rek tiyaaba ji kenn xamuñu ko mu wax ne ku ko julli danañ la jox tiyaaba ku aj màkk junni yoon waaye danañ la jox tiyaaba tamit ku umra junni yoon waaye yemul foofu dana la jox tamit tiyaaba ku saraxe junni diram junni ci ay dërëm ku ko saraxe yool bu toll noonu yow dana la ko jox te tamit dana am yoolu ku seeti junni ñu wopp junni nit ñoo xam ne dañoo feebar kenn nit dem seeti leen wala ay nit dem seeti leen yool bu toll noonu yàlla suñu borom dana la ko jox da am yoolu ku seeti junni ñi feebar te tamit yemul foofu danga am yoolu ku gunge junniy néew xam ngeen njariñ li nekk ci gunge néew neen ku julli ràkk yooyu ma doon wax sànq muy juróom benn ràkk yooyu da am yoolu koo xam ne topp na ci gunge néew lu mat junniy néew yool bu toll noonu dana la jox danga nga amaat tamit ci yool luy tolloog nit ku jàng kaamilu ab alxuraan jàng mu sell yool bu toll ba mu cee am yow da am yool bu toll noonu mu jeexale ko di wax ne ki julli juróom benn ràkk yooyu yàlla suñu boroom dana ko jox tiyaaba ku jaamu juróom-ñaar fukki at loolu rekk war naa tax ñu def julli gi xam ngeen ne juróom-ñaar fukki at nit ci jaamu ko yàlla gun nangu yombul kon mbokk yi dégg ko muy naafila ñaareelu guddi gis nga ay njariñam yi ci nekk njariñ li mujj li mu jeexale mooy ku ko julli da am yoolu ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at lu jafe la kon mbokk yi lii mooy seen la weeru koor ci ñaareelu guddi gi ñu di leen joxaat dig daje incha allah ba ëllëg ak jàmm assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala